jàng inna atay kaw kawsara fukki yoon des na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa mu ko doon jullee te des na ko bindal itam tuyaabay junni xaj ak junni umra dina am yoolu ku saraxe junni dërëm te des na ko bindal itam jaamu yàlla ak juróom-ñaar fukki at mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral nga dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaïbou bu Mbacké page 141